liggéey bi nga xam ne nag euh, ñi ngi koy def muy union des karimistes nekk ay mouvement yoo xam ne dañoo taxaw di liggéey pour jàppale le président Karim sa Wade pour jàppale parti bi nga xam ne ci la nekk muy le PDS ñu ngi ci xam mouvement bu ñuy wax MSK Khady nekk présidente bi ak mouvement bu ñuy wax MSEC sëñ Ousmane Doy nekk fi coordonnateur bi ak mouvement bu ñuy wax FIDES euh, Ngagne Lo nekk fa euh, ñu koy wax monsieur Lo ak mouvement bi nga xam ne mooy OJK euh, président bi nekk Ahmadou Sam Lo coordonnateur bi Fallou Galas ak mouvement bi nga xam ne ñu ngi koy wax takku liggéey Sénégal ak Karim Meïssa Wade ñu gën ci xam soxna Mati Fall madame Mbacké ak mouvement bi ñuy wax ànd ak naaru Karim suqali Sénégal soxna Fat Babou nekk ca bopp ba ak mouvement bu ñuy wax karimis xaadimis nekk mouvement boo xam ne bi mu juddoo yàggul ci fan yu néew ñu nekk mouvement boo xam ne nee ñu dañoo taxaw pour ànd ak man ci liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéeyal le président Karim Meïssa Wade ak mouvement Madakaw mouvement Madakaw ñu gën ci xàmmee euh, Lamine Fall euh, Modou Mati Fall ak euh, Mbaye Diop ak ñin àndal ñëpp ci liggéey bi mouvement bu ñuy wax Bawal ak Karim Meïssa Wade soxna Ndiaye daam ñu gën ci miin euh, tonto Baara Ndiaye moom mi nga xam ne chaque jour mu ngi ñëw ci ndaje yi ak mouvement bu ñuy wax euh, Maskaaw mu nekk moom it mouvement bu jàpp ci liggéey bi ca bopp ba Xaadim Fall nekk fa ñu xàmme ci soxna Lota Gaye mu Modou Dieng ñëpp rek mouvement sans frontière euh, moom it nekk ci liggéey bu am solo fii ci biir réew mi ak ci bitim réew moom it ñu gën ci ràññee Babel Thiam teewal leen fii Euh, yaakaar naa su ma fàttewul benn mouvement lim nag daa xaw a métti suñ fàttee rek ñu jéggal ñu ko ak ñi nga xam ne waaw ànd ak Karim suqali senegal bu soxna Poulmera ca États-Unis euh, ñi leen fi nekkal nag di so euh, soxna Ndey Diop ak sëñ Moodu Kebe moom it mu nekk jàmbaar ci ci liggéey bi nga xam ne dañu koy dañu koy def waaye gis nañ ci ndaje met suñu frère Alaaji Njaay jóge ba Brésil moom ñing koy jaajeufal ci teewaayam eh, gis nañ fi Baye Laat bokk ci ujutel gis nañ fi seigne faluka, momit yor mouvement Karimis ñom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñew fekke ci ko ak eh, suñu mama soxna Asu momit it ba Ndindi ak ñi nga xam dal daal ak askaw bu khadim Cissé momit mu ngi ni sama kanam tok ñukoy sante bu baax kon dal lima wax sang rek lim mo xawa jafé kep kuñ tuddul wala ñu fatali ñuko ko ne dañu rëcc rek waye ñëpp lañ am yéene tuddu leen képp koo xam ne da ngay liggéeyal le président Karim Meïssa Wade jamono juñ tollu nag mu nekk jamono joo xam ne li bari na ñu bari di wax te xamuñu ci li ñuy wax dara mais li am solo mooy su wax jugee da ngay saytu wax ja fan la génne ak kan moo ko wax dégg nañ fi ñuy wax ay dat yu bari naan PDS da ngeen di joxe ay dat te mësuñu gis le président Karim Karim Meïssa Wade joxeegul dat président Wade joxeegul dat ci parti lañu nek muy parti bu organisé wu di le PDS ñepp xam ko bis buñu aggé ci taxaw jàkkaarloog aduna bi ndax mbiru Karim Meïssa Wade dépassé né Sénégal aduna bi yépp moo koy suivre danañ taxaw jàkkaarloog suñu mbokk journalistes yi wax leen bis bi nga xamné ci le président Karim Meïssa Wade di ñew wax leen ci naka lay ñëwee wax leen naka lañ koy préparer pour ci accueil bi nga xamné fas nañ ko ko défal parce que ay millions de sénégalais lañ bëgg suñu ci aggé ñu dem jëli ko fële ci aéroport Blaise Diagne diglu ko fu mu joxañ ñu jëm fa ak moom bu dee point 1 ñu ànd ak moom ba point 1 dalal ko suñ fa jógee direction fii ci Touba pour ñëw ziar si le xalifa général ak ñi nga xam ne ñooy population Touba kon daal ci gàttal ci gàttal dañ leen di wax ne yéen ñëpp da ngeen préparé wu te digluñu ci fan yu néew dinañ leen jox jours bi nga xam ne candidat du peuple la président Karim Meïssa Wade ci lay ñëw Sénégal ci lay ñëw fii ci diwaanu Touba ñu war ko fi teeru teeru bu am solo